njiital Pastef bii di Ousmane Sonko la porté plainte ngir viol ak menace de mort ca section de recherche bu Colobane moom nag Sonko benn masseuse bu ñuy wax Adji Sarr moo ko porté plainte ñaari fan ci weeru février bu ñu sukkandikoo ci journal bii di Les Échos xale bu jigéen bi nag ay atam toll si ñaar fukk xamal na enquêteurs yi ne Sonko dafay faral di ñëw comme client ngir def ay séance de massage waaye nag du ca yem ndax saa su ne bu defee massage ba noppi day exiger ay faveurs sexuelles tëdd ak moom ah, ci noonee xale bu jigéen bi ne mënatul dund ak viol répété yi ba tax rek ah, day dund ak stress bu rëy lool bu ñu sukkandikoo suñu naataango yi auditionné nañu tamit ku moom salon de massage bi ci boobule affaire Sonko nag ah, lu ko ñeel nee na moom yëggul benn plainte bu ñu ko porteel du si huissier rawatina assignation wala sax signification mu indi comme leeral moom jiital Pastef bi bu weesoo loolu nag xale bu jigéen bi am ñaar fukki ko yóbbu fa mbaxane doonee benn nee na bu weesoo viol yi Sonko da koy menacé de mort ci seen salon de massage boobee nekk Sacré-Cœur boroom boromam di F Coulibaly kuy tuumal Sonko di Adji Sarr nee na sax benn fan ci weeru février Ousmane Sonko yónnee waatoon na ko beneen message ne ko rek dina jaar mu xaar ko tax rek mu dem fa mbaxane doonee benn gannaaw ba mu mënatulee supporter li ni mel Adji Sarr nag auditionné nañu ko ñaari yoon lu yàgg lool ca section de recherche ak salon ba ba loolu weesoo euh, la ñu ko yóbbu ci benn spécialiste ngir ay prélèvement euh, moom nag euh, nee na saa su bañee tëdd ko Sonko da koy forcé nee na sax benn bés Sonko daf ko xoj forcé ko tëdd ak moom si noonee nag mu ne mu sa wax li ni mel tax mu noppiwaale ko te doon yaakaar ni dootul amati waaye nag demeewul noonu ndax Sonko daf koo def yoonu tool te ko si menacé ni rek dina ko fi jëlee maanaam dina ko faat ndax am na puissance bi ak tamit position wam ci réew mi enquêteurs yi nag teewlu nañu tamit ñeneen comme témoin euh, ba loolu nag weesoo ba tey rek Sarr mu tuumal Sonko ca salon Sweet Beauté bu mu nekk ca Sacré-Cœur 3 euh, gannaaw nag euh, ba patronu salon bi xamale enquêteurs yi ne Ousmane Sonko day faral di ñëw ci salon de massage bi waaye xamul lenn si ay relation yu mu am ak employé boobee xibaar bu bees daal dinay jibaat gannaaw ba enquêteurs yi yóbboo xale bu jigéen bi si ab spécialiste ngir mu xool ko examen ya ñu jël accusation yu maanaam euh, tuuma violence sexuelle ya nga xamante ne nii rek euh, xale bu jigéen bi jëmale na ko ci leaderu Pastef bi ba tax na rek gendarme yu boucler première phase bi dinañu convoqué bés yi Ousmane Sonko ngir teewlu ko moom it euh, procureur de la République bi di Serigne Bassirou Gueye mi ngi topp tamit enquête bi ngir xam rek lu si toppandi enquêteurs yi pare guñ tamit ak borom salon bi gannaaw ba ñu koy reproché délit de prosénétisme